nee na paas moom par force la ba tey waaye Macky sàll la doy waar mooy ay punkal yoo xam ne ñu ngi liggéey ci administration Macky daal ñu leen di jox paas paas salaire yëpp la yokk ah te moom moo fi def vidéo xam le ne salaire yu dëkk bi lii ak lii dafa lii ak lii dafa metti lii ak lii lii ak lii ba lim ba yegg trois cent milliards lima lima lim lima lima lima mais avec ça ku jóg naan yokkal ma yokkal ma waaw moom léegi muy dem bi yokkal ma ne ko yokk. Macky kay fin bi daa mel ne non non vraiment. waaw est-ce que Macky tamit ñun duñ jéem a wut adresse tamit jéem a jéem a dem xooli fam ne. parce que xam na ne xam na ne day dem explication. ah ma ne laaj ko mais journaliste yi war nañoo sopp ba fekkee Macky fam ne bu dee Maroc la ne wala France ñu fekkee ko jéem koo laaj ay question man de lii mooy sama xalaat man soose ci mbir mi. ah oui. dégg nga loolu. Thierno Bocoum nag. jaara. Hmm. Hmm. wóor na Diomaye Faye son excellence. njiital Agir mu ne. li ñu war a njëkk a def bas kay dañ ko war a dàq. lan. turandoo bas. <laughs> bas dafa war a dàq bas. bas bi kii sewoon sànq ne woon bas mooy Ahmed Ahmed mooy bas. <laughs> du ma Ahmed du ma bas du ma bas boobu de. ah ma defalee beneen bas boo ma defalee bas fay ma ah mais Bas Gueye. nga defal ma Bas Mbàkke ma jël. Bas Gueye. jëluma. sama niveau dépassé na maanaam da ngeen a nuroo nag kiif kiif kiif kiif kay. sa niveau dépassé na dégguma. ma am lu ma naqari quoi man plateau bi jox ma fi benn cër man est-ce que cent millions vues yi est-ce que man la seetaan sax man boo demee xam naa gars yi bu may génn si écran sax gars yi xoolal ñu xool ne. man nag bëgg naa ko démarcher pour def ak moom émission. kan jar na ko. non Bassirou Gueye pour of nag <laughs> procureur mais moom il a beaucoup à dire li mu war a wax dafa bari de dafa war a wax. <sighs> dégg rapport yi dañ ko war a faram. <laughs> tout cas Thierno na. Hmm. Bas Faye daa war a dàq Bassirou Gueye. waaw Bas Faye na dàq Bas Gueye. waaw Bas daa war a dàq Bas son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa war a dàq Serigne Bassirou Gueye éjecté ko jëlee ko af nag. yemu ca rek monter na ko clarifier les accusations mais mais Karim Wade. Hmm. mais Karim Wade mais dafa tuumaal waa conseil constitutionnel. yu garaaw sax. ah jaar. Hmm. waa PDS yi boppam ñëw assemblée nationale. Hmm. indi fa ab plainte waa APR jàppale leen. ba looloo sabab aju élection bu njëkk ba. ñu xam ne carrément ne am na ay magistrats yi nekk conseil constitutionnel dañoo laal milliard jëm kaw. waaw ne am tudd turu Amadou Ba. ca biir seen projet ba ñu indi assemblée. ne am nañ ay preuve <laughs> ñoo ko wax de. dégg loolu. Ah. ne Amadou Ba daa nekk ci campagne wu confisquer le pouvoir tuumaal ko tudd turam waa léegi boo Bocoum ne waa mi tuumay Karim Wade yooyu ci kaw conseil constitutionnel non loolu daa war a leer état mm-hmm. continuité la. Mm-hmm. waaye Moussa Adja yemu ca ne waa mi déclaration de patrimoine bi doom nay na mat. bu ah eh, ah. ñi ko hmm. ñi ko war a def ñëpp. ba pare waa Karim lu ko yóbbu Qatar. <laughs> loolu léegi bu dee gouvernement au Sénégal comme que procureur u Qatar moom ñëwoon na fi. Hmm. waaw ci coowu Karim bañ ne ay affaire u état dugg na waaw léegi Karim Wade mii <laughs> son dossier. Hmm. nekkuloon moom Karim Wade nii militant au PDS ak dëkk biñ ñu naan Qatar. wala am fa xarit dem seeti ko non il a été emprisonné gracié jox ko avion ca guddi ga mu dem Qatar. te procureur fi jël te procureur ci boppam dikk na fi bu Qatar. waaw léegi comme que état continuité la Thierno boo comme ne son excellence monsieur Diomaye Diakhar Faye Karim Wade mii condition wu départ dem ca Qatar waaye Sénégal dana kumpa géeg ñuy rey ñu mel ni bàmmeel mm-hmm. Karim Wade lu ko yóbbu Qatar ay lu ko yóbbu Qatar. ak lu ko tee ñëw. loolu tamit war nañu ko ba hmm. dañ doon nga dem. man may waaj a dogu mbay taay seen wooma ne ma sama patron de ay at a ngi nii mosuma toog nii te gisuma ko ma ne ñuul meen ñuul nooy wër ko fi yow gisuma ko mooy maître ma di Kenya. lenn rek a mën a am amet loo jàpp ba ko wutali buntu kaso ba falaa xalaat ne sama patron fa sécurité mm. jékki-jékki gisu ko ci biir kër gi ko fi ci biir almadi gi yëpp gisu ko ndeke maître mu ndeke na mees dem kaso dem kaso ba dem ma siif tàndar ma nga gaañ ndaw <laughs> taxaw ca buntu kaso ba man doomu féete géej gi di eeree lu ne benn waay fekk ma fa way monsieur ba léegi ma xam ne kii ab takk der la ma ne ko non non j'attends un ami mu ne way ce que doo gis kii bëndali ma nga puus. nga ñu génn non non non ma taxaw ma démbalale rek benn punkal mi bokk seen association boobu ñoom Madické Niang ak ñoom Samir Sarr rek ñoom euh, Omar Sarr rek ñoom ñooñu ñëpp. waa Dillu. waa Dillu. ñi lal Dillu ñoo lal Dillu la. <laughs> waa dil bi waaw benn ponkal bu waa dil bi. waaw xam ne kii li mu fi def si. xabaar lay wut. la <laughs> boole saay-saay waxtaan jéggi tali bi dem taxaw fële wéy la kaakaar yi ma wéy mais nañ dem ba na leen na leen tox na leen topp ci ndeysaan bi waxtaan rek wéy si ngir kii benn numéro di ma woo may coupé rek di coupé nekk te ab takk der la. pour wax la ne sa waay génn. waa jàng ma naan xoolal gaawal ñëw voiture banalisée léegi mu génn daw si daw si daw si. yëkk-yëkk rek journaliste yi commencé ñëw benn par benn benn bañ ne génn dama départ wutali kër Ablaye Wade ñëw taxaw di xiin xiin yi police bi fa la ma fekkaat. piste piste bu baaxul lan la jox maa la doon ñoo ñu dañ laa nax fekk dafa yóbbu la nee naa la nañ dox yi yow lañ bëggoon nga puus pour ñu génnee kër ñoo lal dil bi soo xamoon jël. <laughs> Ah. scoop la woon loolu scoop la woon scoop la woon sa waay ma ne ko ah mais mi ngi ñëw fii quand même kër buntu kër Ablaye du fees dell ma taxaw ak Amina Sakho grand bi ne ma policier bi de aéroport la jëm du fi ñëw <laughs> ma ne ah mu ne waaw ma xool Barça en arrière bi fan la féete. nga ni karaj karaj amee naa saako naan waa amee doo xaar Karim ma ne ko ñëw fii mu ne ma ah kay nee mi ngi ma ne ko toog fa. <laughs> doo ko gis toog fa boobu waa gañ nga us perte nga fële. yàlla doo ko gis. <laughs> Pape Birahim Touré fa Fabrice bëreet bëreet wutali aéroport seenu ñu dara yaay lu dul waa Dilwa nga ca avion waa dil wala xëccoon fekk embarqué nañ ñoom ba toog di xaar. dugg nañ bu yàgg jaar nañ kër ma dikkee ba xalif général murid sëñ Sidi Maxtaar. xalifam ba euh, euh, euh, ñaanal di di ko ñaanal ba ñu leb yoonu aéroport ñun ñuy xiin xiin policier ma ne ko mais grand boo ma woon ci 529 ma xam ne lii policier la mais sa numéro bi nga ma doon nii te maa ngi taxaw ak ay kilifa. bañ di wuyu wala nga message. il faut ne dama lay enregistré wala dara. Hmm. moo tax may coupé quoi. wala nga message non maa laajte seen numéro ne Ahmed Aidara maa ngi ko gis fii mais warul sori fii bu yéex ñuy génnee booy bi <laughs> donc gars yi ñu ci biir di takk bagage yi ak di defar ay kayit man toogoo ba may dellu si leen foofoo nga fees teew. journaliste yooyu taxaw waaw fekk information bi daw na. ndeke boobu génn ba dem ku ne di xiin xiin naan way euh, Karim euh, va sortir euh, d'un moment à l'autre vous aurez l'information du jour les scoops ndeke tey doomu Ablaye Dia dem na. <laughs> yow ñu lay woo nekkee waa dillu nañ la. waa dillu waa ma yóbbu. parce que yàlla loolu def naa ko ci mim réew sax may xiin xiini taal oto ba wut xoolal wuta wutali pooyo. te Dubaay ma lekk coono ànd ak Isma. moom nga ndox bañ ne du ma bàyyi Karim mii dinaa ko gis ci ñi wala ci ne. wuta liggéey pooyo waaji ne la. ma dem taxaw pour ma yegg si ñoo fekk ñoo amee naa saako bërëb bërëb yi waaye yow Ahmed yow laay lay la laa. ay waaye am na ndam am na Karim président ma ne leen ah policier ba ñëw ba ci man ak civilu kay ne ma grand ci loo ne koy eh, mu ma nii carte bi mu ne ko eh maa la doon woo ci numéro bi grand fa nga nekkoon fa laa jógee nii ma ne ko way sécurité këru baax bi ko waa xam nga rek xam naa ñëpp fii la ñuy daje mais booy bi du fi ñëw ma ne ko ah aéroport. ma ne ëpp na. ma lonku arrière. ma lonku arrière ma lonku arrière. ma ne Isma ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal. <laughs> sooy. woo Fabrice ak Birahim Touré ñu bërcët ñu fa. waaye man moom comme comme aéroport ma xam ne Karim du jaar ci lu mbox salon d'honneur ba rek. ma daf ko ci bisis bi. wàcc commencé jéggi di daw. jël jardin yi bëri bëri gars ñëw fooy jaar. Mm-hmm. ñu waa dil waa nga nële ca biir avion ba toog oh ñoom Samir ñoom ñoo ma ñoo ma jaay. ñoo lal dil ñoo lal dil wa. yéen lañ la waa kër Abdoulaye Wade yi. Samuel Sarr Samuel Sarr. ak Madické Omar Sarr. Madické Niang Madické Niang. te tey la mbir mi neex a nettali nag tey tey jii neex a nettali. Mm-hmm. ñoo lal dil